et eh, gars yi après Sadio Mané ba mu fëggee table bi Ismaïla Sarr moo ci topp Ismaïla fëgg na ci table bi wax na de no kaas na wax na waaw ah, wax na wax na démb ci seen defet bi ah sunu international sénégalais jamono ji ñu ngi jiital ah muy noonee waaye gars yi Ismaïla Sarr sunu international ak accueillir na ay goneem ak i rakkam ak ñoom seen salaamaaleykum amateur de foot nuyu nañ leen ko ci nekk seen tur ak seen sant xibaar mercato tey 19 août ci wàllu tàggat yaram dinañ wax ci Ismaïla Sarr. kàddu yi nga xam ne jot na koo génnee démb après ñoom ba ñu ñàkkee ci kaw ñoom Lamine Camara mi nga xam ne vraiment gone gu am avenir la waaye Sabaly sa gars yi la exceptionnel kenn du Malick Mbaye daf maa réeré woon mbir démb Ismaïla Sarr daal gars yi nee na Olympique de Marseille démb match bi dañ ko waroon gañ amul sikki sàkk match la boo xam ne force dañ ko waroon gañ waaw li ñu rate ci ay dafa bëri trop te loolu waruñu leen woon démb seen match contre ki ñu naan Metz waaye yamul foofu nee na moom sax jot naa raté deux occasions France kon nag tu conscient nga ci lool kon nag gën cee góorlu doomu ndey kaas nga wax nga waaw mais nag góor góorgóorlu ci finition bi vraiment yaa ngi def lépp ci accélération dëpp depuis bés passe tu vois une deux mais passe camp yi rek moo des kan yi yaatu na xool ko nga xool ban secteur nga war a passe wala nga travailler ko ci entraînement yi avant match bu gaa yëpp demee nga def di Cristiano doo doon def wala sax kookee di Drogba instant yi niveau bi da nga ko war a dépasser niveau toj accéléré ñëpp yuuxu rek nga yem foofu noonu accéléré ñëpp yuuxu dëpp dippi nga ñëw passe camp yi Vinicius foofu la tolloon évolué na léegi muy dugal yow nag yaa ci topp pour nga yegg jamono ji wala dépasse ñoom Mbappé ñoom seen wala yegg seen niveau finition bi rek moom mooy des te loolu loo war a liggéey la maanaam bu entraînement jotee bu ngeen entraîné ba ñëpp dem yow da ngay def buuñaa bonus heure supplémentaire ngay def di nga jël benn 15 minutes boo xam ne wala 30 minutes boo xam ne but rek devant les ngay travailler xaas-xaas dëpp dippi bës bës rek yow kase ci terrain bi passe camp yi di nga dem ba yow di nga dugal te xool camp yi automatisme réflexe bi lépp danga koy am la looy liggéey la am ngeen ay ay ay ay ay xaw ma ay statut ngeen ko tuddee xaw ma nu mu tëddee noonu ngay teg say bal di dóor di enrouler di dóor say coup loolu yéen a koy liggéey waroo leen xaar ñu la koy wax vraiment am nañ ci yéen yaakaar mais xoola iso loolu bàyyi ci xel nga gën ko travailler efficacité bi moom bu ñëwee ci yow moom vraiment suñu xel dina dal kon nag conseil de frère la en tant que frère loolu laa lay conseil bu ma doon football yegg niveau bi ngeen tool nii laay loolu laay def kon nag bàyyi leen ci xel bu baax a baax a baax Izo nga gën a travailler efficacité bi incha allah tôt ou tard dina ñëw ñun am nañ ci yow yaakaar yàlla na la yàlla defal jàmm ak salaam nga gën di évoluer bu baax a baax a baax macha allah débuté nga saison bi bu baax a baax finition rek moo des lépp dina baax mu ngi noonee pour kooku di Lamine Camara il a fait un bon match témb deuxième mi-temps dugg géré na temporiser li nga xam ne soxlaa woon nañ ko ci biir terrain bi organiser jeu bi démbal def na ko waaye yemaatul foofu Malick mbay ci accélération yi ni mu doon jàppale équipe match bi c'est parfait Sabali bii bi mu dugal jàppale match mu ngi noonee waaye dañuy continuer gars yi xibaar mercato bi wax ci kan jour boobe naan ko Merih Demiral dem na rejoindre club boobe di Al Ahli bu ñoom Edouard Mendy Atlanta la jóge nag Al Ahli nag jamono ji mu ngi tegu ci temps Al Nassr nag mu ngi ci kookee di Otavio Otavio nag mbir muy avancé accord verbal am na entre joueur boobe di euh, kii di euh, Otavio ak Al Nassr mu ngi noone mbir mi daal gëm nañ ne dina avancé entre Porto ak kookee soixante millions d'euros di clause libératoire am Al Nassr mën na koo déclenché ki nga xam ne Arabie Saoudite foofu lañ déclenché euh, clause libératoire am nag muy cinquante millions d'euros bi nga xam ne déggoo noonu ko muy Fulham ak kookee di Al Hilal bu ñoom Edouard Mendy bu ñoom <laughs> Kalidou Koulibaly bokk Al dem rejoindre leen du yàgg dara incha allah war faa signé ba 2026 muy 3 ans di Mitrovic mu ngi noonee waaye le ci euh, match bi doxoon diggante euh, Fulham mu ngi noonee ak kookee foofu moo leen di ni euh, kookee di Mitrovic yàggatul dara dina di Al Hilal Rondal Kolemani moom mi nga xam ne ma ko doon laaj pour mën a toog foofee ca PSG accord verbal am na entre Colomani ak kookee di PSG li des mooy que PSG ak kookee di Eintracht Francfort ñoo ci des mbir mu war a mën a wëyal dem rejoindre Paris Saint-Germain doon en tant que attaquant signé fa contrat ba deux mille vingt huit ngeen xamee ko noonu gars loolu moo nekkoon xibaar gi tey dix neuf août ci wàllu tàggat yaram euh, képp koo xam ne nag abonné goo suñu seen YouTube c'est simple comme niñ leen ko tàmm waxee dugg leen suñu page TikTok ngeen bës logo YouTube mu yóbbu leen directement euh, ci chaîne YouTube bi ngeen abonné activé cloche di seetaan foofu vidéo yi ba mu jeex loolu ngeen ñu mën a soutenir bu baax a baax kon nag def leen ko massivement merci à vous yàlla na seen jàmm yàgg jaajëf. Amen. وإن وضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم ngeen yàggal ay seen waa. ngeen mokkal alxuraan. ngeen mokkal alxuraan moom seen yaay nañ kontaan vraiment. loolu la leen bu baax a baax. yaatu macha allah. daa leen yàggal ay seen waa. def leen ay bëccëg yal na yàlla fay leen dégg ngeen yal na yàlla fay leen ci way yi ak jàng alquran